fadi lisaani na wér janaani safi amaani wasir bara yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe sëriñ Abdou Lahad Aw waxtaankatu seexul xadiim ginnaaw ba ma ñaanalee Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifatul am li tariqati muridiyya ñaanal ko mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ñaanal njabootu seexul xadiim bi yëpp suñu borom yàggal leen fi te nu ànd ak wér nga xam ni ñu bëgg a ñëw waxtaan ak yéen ci bis bi nga xam ne moom la dëgmal ajjuma di ibbi ko Masaalikul Jinaan jumaa ji nga xamante ni genn la ci Afrique de l'Ouest nga xam ni jumaa ji di ko waral dëgg-dëgg di jumaay Masaalikul Jinaan laa bëgg a xamal waa senegal képp koo xamante ni yaa ngi seetaan vidéo bi nga xam lan ma waral jumaay Masaalikul Jinaan ji xam ni Seexul Xadiim ba mu demee foofee nga xam ne mooy maa yombe ba nga xamante ni waxtu julli daa jot ci diggante takkusaan ak timis Serigne Touba jël ñeenti xeer jubale ko penk di waaj a julli ci wetu buntu këram nga nga xamante ne keroog ba muy waaj a julli ab soldaar dafa ñëw tasaare jàkkaam jooju ku ñuy wax sëñ Yéli Sey ni soldaar bi kii de fii mu teg jumaam jii jotewul ak dara nekkul ci yoon lu tax nga di koy tasaare tubaab ba tontu ko ni ko fii suñu dëkk julli xewu fi xamul lan moo di jullit kii xanaa daa bëgg suñu soldaar yi yàqu di ko topp ci lii muy def yéen sëy ni ko dinaa jëlaat xeer delloo ko soldaar ba ni sa yéri doo ko fi delloowaat de ba tey Sëñ Tuubaa leen de booba jamono moom Sëñ Tuubaa mi ngi sëgg di bind rek ban xasida doon bind bis boobu rabbana axrijna min haadihi alqaryati zaalimi xasida googu la Sëñ Tuubaa doon bind xasida googu moo tàmbalee raditu anil mawla boobee seen sëñ Tuba Xaadimu Rasuul doon bind mooy raditu an mawla taala lazi rabba fo aadi wa axnaani wa akrim bihi rabba xasida googu la Seexul Xaadim doon bind ba tey tontu mu leen de waaye nag nafaa di xëri laaw fii maa yomba maa sa a xalbiya waaw keroog de ban tasaare jàkk ja maa sa a xalbiya de la naqaroon ak xolam mooy waaj a dugg julli jël ay xeer def ko ko jàkk jubale ko penku tubaab bi tasaare ko loolu kay maa sa a lool mooy la metti xolam waaye lan la ko ci yàlla fayee wa ahlal janba wa ahlal janba lan mooy lan janba googu mooy bi maanaa rafmul manaaraati mooy sooroor yi soorooru Touba soorooru Njaaréem soorooru fan Masaalikul Jinaan te day nag ba tey nag rafmul manaaraati jeexagul de Masaalikul Jinaan gii projet ñaar fukki milliards ak lu topp ba yeneen manaaraati yaa ngi ñëw de. ma ne ku ku fi dund bàyyi yàgg fi ba fi da nga gis liggéeyam Serigne boo xam ni looy gën di xëy muy gën di leer Serigne Touba gën di am ndam ndax darajat yi taxlu wala lay sa tan xafit wa man nahaa minal wara xaf bi yàlla yàllaa malikati te dootuma suufeel ku ma bëgg a suufeel yàlla ndëpp la ba kenn dootu la dégg ana tubaab yi yóbboon Serigne Touba kenn déggatul seen tur waaye tey waxuma la Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul turam dootul fay waaye ndakaaru boobu nga xam ne tamit fanal ko doon tegee natt di ko tegi coona bam nan isa zakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa subuta taaru ila al jihaadi bil armaai nafsi walakin saba an il maayi waaye tey jii nag muñoon na te yàlla tax àndoon na ak yàlla wanoon na ginnaaw addina topp yàlla tey li ko yàlla fay ñëpp gis nañ ko mooy masaalikul jinaan bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu